ñaareel wi nga xam ne dañu koo defal ngir woyofalal nu waaye cosaan bi mooy astaxfirullaaha te ña astaxfirullaaha téeméer salaatul ala nabi téeméer laa ilaha illallah ñaari téeméer te booba nag amagul woon jëfaratul kamaal mu ni astaxfirullaaha téeméer salaatu ala nabi téeméer laa ilaha illallahu ñaari téeméer lii mooy cosaanul wasifa wi say xalaa jëmar wax na ca rima nee na Seydi Mouhamed Buxaari wax na ko ni lii ma mujj wax mooy cosaanal wasifa wi te am na ñoo xam ne ba tey nii la ñuy wasifaa te ku mu neexit nga wasifaa ko waaw nee na ko te am na ñoo xam ne ba tey ñu koy wasifaa te ku mu neex nga wasifaa lii tey ku ma neexee nga wasifa naa ëllëg ñaari fa wasifa yëpp Seydi Hadji Malick wax na ko ca Faati Xulaas ba am na ñoo ñoo xam ne dañu ni dégg naa ñu ni bii dañu ko mën suuxal te ku ko wasifa amul wasifa waaye Cheikh El Hadji Omar nag moom la mu wax ñu loolu ko Seydi Mouhamadou Khari wax moo di ku ko wasifa am nga wasifa bu ko defee nag ba ko ñetteel moo di xadarul jumaa xadarul jumaa moomu nag bari na tiijaan yu bari yoo xam ne dañu ko def wala dañu koy defee nu leen neexee te ñu sëñ Babacar Si dafa daan wax tariixa bi ñetti was na am werd wasifa xadarul jumaa te was kaw di su dee ñaari waxtu taxaw su dee benn waxtu taxaw kon nag képp koo xam ni ñaan nga werd wi ñett yi soo ci bàyyee benn nekkuloo tiijaan kon nag ñi nga xam ne dañoo ñaan werd bi ba noppi te bu ñu werdee du ñu wasifa wala du ñu def xadaru jumaat na leen yé na leen wóor ni nekkaguñu ba tey ci tarixa bi kon nag képp koo xam ne ñaan nga werd bi bu ñu la ko mayee doonte waxuñu la ñett yi itam na nga xam ne ñett bi ñoo ànd te di tarixa bi kon da ngay werd di wasifa di def xadaru jumaat xadaru jumaat boobu nag dina ni ci ñëw te ñàkkoo defit dina tax sa mbir yëpp yàqu na yàlla nattu la sa alal baa mu nattu la sa yaram wala mu nattu la nattu yoo xam du dañ mukk bari na commerçant boo xam ne bii am nga pertement wala sa mbir yàqu na te bàyyi xadar jumaat rek moo la ko teg te bés boo jëlee beesuwaat di wedd di wasifa correctement ak itam di xadar jumaat ni mu ware léegi nga gis bénéfice yëpp doxaat ñeenteel ba ni boo ko dee def ni nga ko war a tegalee moo di da ngay jiital astaxfirullaaha teg ci salaatu ala nabi teg ci laa ilaha illallahu waaye waroo ko safaan te waroo koo jóge mooy ñeenteelu masala ba ma ni ñeenteelu masala ba mooy booy werd da ngay njëkki astaxfirullaaha teg ci salaatu ala nabi teg ci laa ilaha illallah noonu koy defee nee na masala juróomeel ba nee na salaatul fa salaatu ala nabi bu la neex nag nga wasifaa ko nga werde ko waaye nag salaatul faati moo gën budul moom teg Seydi Ahmad Tijaan ne secrétaire bi ci ñetti yëf la ne ci salaatul faati ak ci faatitul kitaab ak ci julli juróom julli juróom ak salaat faatu kitaab secret tarix bi dëgg foofu la nekk juróom benneelu masala ba moo di werd boobu nga xam ne nag boroom jox na la ko bu dee ci suba mi ngi tàmbalee waxtu yi boo jullee suba ba noppi ba kera yoor yoor bu dee ci nee na bu ko defee yoor yoor boobu nag masal mooy dix heures daróor yi yëba nag ma nga dem ba jant bi so kon nag soo su julee suba ba noppi te war a werd war a wasifa na nga ko def balaa yoor yoor su fekkee am nga ngant wala am nga loo doon def te ngant looy ngantal sariya lay doon kon nag la ko fadale ba jant bi so foofu werdee wala nga wasifaa fi baax na nee na su dee ngoon nag te mooy juróom ñetti juróom benneelu masala ba juróom-ñaareelu masala ba moo di mi ngi tàmbalee boo julee tàkkusaan ba kere gee jot te mooy dix heures du daroori yé nag mi ngi commencé ci dix heures dix heures ba fajar jot ma ne su fekkee da ngay werd ngoon boo julee tàkkusaan ba noppi ci ngay soog a werd wasifa su ko defee nag waxtu woowu dem na ba keere joo jot mooy muxtaar ma su ma soo xamee ni mi tàkkusaan jot na nag gee jot na nag te fekk amoon nga ngànt la ko fa dale ba fajar nee na loola itam waxtu wala am na ñoo xam ne dañu defa ni soo jullee tàkkusaan sañoo werd sañoo wasifa sañ ngaa werd saña wasifa amaa jant bi so su fekkee ni nga ba timis itam ba tey baax na waaye na nga yëg ni daal soo jullee tàkkusaan rek sañ ngaa werd sañ ngaa wasifa te fekk jant bi du so loolu mooy juróom-ñaareelu masaba juróom-ñetteelu masala ba moo di jigéen su yoree reegal wala mu wasin wala nga feebar nee na sañ ngaa wedd sañ ngaa bañ a wedd sañ ngaa bañ a wasi ba njëgam nag feebar ba feebar bu tar la su feebar ba diggu doomoo anta muxayyarun fil wirdi wal wasifati wa fi tarkiha su fekkee dafa woyof nag war ngaa werd te war ngaa wasifa kon nag ma ne juróom-ñetteelu masala ba moo di jigéen su fekkee ni dafa gis baaxu jigéen wala boog mu am doom te deral jiy dikkandi te dogagul sañ naa bañ a werd sañ naa bañ a wasifa waaye su ko neexee mu werd su ko neexee mu wasifa te fekk na mi ngi derat jooju nag waaye nag bu boobaa nag moom jigéen ji nga xam ni mi ngi werd te dafa gis baaxu jigéen su eggee ci jëwéru kamaal nag da nga koy remplacer ñaari benn salaatu fa ñaar fukki salaatu faati naka noonu koo xam ne da ngaa feebar ci biir waxtu werd bi wala wasifa bi nee na werd wa wasifa wàcc na la su fekkee ni man ngaa góorgóorlu ba def ko it moo gën waaye soo ko deful it amuloo bàkkaar waaye su fekkee feebar bi dafa woyof war ngaa werd te war ngaa wasifa moo tax si daaj ma ni taxyiru si saxaami wal mari wal maxiidi jaa ani tijaani si tamxiidi loolu la ko waxee ca faakee ba ne moo tax mu ne wal mutawasitu mu xayarun wa sadidu laa shay alayhi bu fekkee feebar bi dafa diggu dóomu su la neexee wedd su la neexee bàyyi ndax bëgguñoo tiisal kenn su fekkee ni feebar bi tar na nag su kon sa wàcc na la boo ko deful dara néewu ca nee na su fekkee mooy fukkeelu masala ba ak ñaar nee na su fekkee waxtu wi dafa jot nag nee na su fekkee ni tàkkusaan dafa jot te julleeguloo tàkkusaan sañuloo doxale werd wi diggante waxtu wi jot wi ak julli gi déedéet da ngay bàyyi julli ba noppi soog a werd ma ni bu tàkkusaan jotee cinq heures te julleeguloo sañoo fee doxale werd wi da ngay bàyyi ba julli ba noppi soog a werd soog a wasifa waaw su fekkee ni itam suba dafa jot fajar dafa jot ci suba te weer dagul weer julleeguloo sañu loo doxalee diggante julli gi ak waxtu wi jot bi da ngay bàyyi ba julli suba ba noppi soog a werd soog a wasifa ma ne su waxtu wi xisee jot da ngay jiital julli gi soog a andi werd wi loolu mooy fukkeelu masala ba ak ñett fukkeelu masala ak ñeent nag nee na wa fi layli yajuusu taqdimu bada salaati l isaayi bi xadri ma yaqra'u qaari xamsatu ahsaabi bi tartiili nag nee na fukkeelu masala ba ak ñeent moo di dagan na ci tarixa Seydi Ahmad Tijaan nga jiital werd suba kañ boo julee gee ba noppi ba nga xam ni mën nañu fee jàng juróomi isib njàng boo xam ne nag bi tartiilin wa tatabburin wa tafakkurin lay nekk nee na boo ko nattalee mi ngi mel ni dix heures ci guddi sañ ngaa werd sa werd yëpp ak sa wasifa yëpp ak sa sikkar yëpp njëgam yaakaar nga benn ngànt na bu la arrivé ñi ngi lan nga doon xëy cinq heures te fa ngay dox nag mënoo faa werd mënoo faa wasifa te itam place bi itam soo demul mën nañu laa dàq kon bu dix heures jotee sañ ngaa werd say wasifa jàng say wedd yépp soo ko dem su fekkee itam da nga am liggéey boo xam ne bii liggéey boobu ci waxtu woowu koy mën a mën a liggéey sañ nga koo jiital nee nañu itam am na ñu nii nag sañ koo jiital te dara taxul lu tax ndax eh, yoolu werd ak njaamu yàlla yi ci guddi day dolliku walooru juróomi téeméeri yoon maanaa soo jàngee benn peru salaat faati ci guddi mi ngi tolloog benn peru salaat faati juróomi téeméer ci bëccëg soo jullee ñaari rakkaa ci guddi mi ngi tolloog juróomi téeméer rakkaa ci bëccëg soo fekkee jàng alxuraan ci guddi mi ngi a ba a- isib bu ne mi ngi tolloog juróomi téeméer isib ci bë- ci bëccëg looloo tax nit yàlla yi ñoom jaamu yàlla ci guddi moom la moo leen gënal jaamu ko ci bëccëg ndax yoonu guddi bi moo ëpp bëccëg bi ndax boo demee ci ñiy liggéey sax ñiy liggéey guddi seen tuya seen pay moo ëpp ñiy liggéey guddi ñiy liggéey bëccëg moo tax mu ni nag su fekkee ni nag amuloo benn ngant lu da nga koo bëgg a jiital dongo dem di tëdd nelaw ba nga xam ne waxtu woowu dara du ca dem kon nag li gën nag mooy nga wàññi werd yi rek te bu suba jotee nag nga continuer say werd moo gën nag waxtu woowu ngay tëdd nelaw moo tax si daaj maa ni mi wala tuqaddim saa'iral awraadi nu mu ko waxee ti sax illaa illaa illaa li suri baadi wala tuqaddim saa'iral awraadi illaa il ah waaw usran baadi nee na bul jiital wérd yëpp ba nga xam ni bu si asamaan setee doo def dara loolu da ngaa am ngant rek boo amee ngant daal sañ ngaa jiital wérd yëpp soo amul ngant nag sañ nga caa jiital daf desal ci las lëf moo tax mu ne wala tuqaddim sairal awraadi ila isa sananta usran baadi waaw noonu la ko waxee moom Seydi Hajji Maalik radiyallahu taala anhu nee na moo mu ni nag fukkeel baag juróom nag am na ñoo xam ne nee ñu yajuusu taqdimul wirdi li xëy li usrin aw li xëy li usrin dégg nga de bi niyati idraaki fadilati sikri fadilati layli nee na am na ñoo xam ne nee ñu kay boo amee ngant ak boo amul ngant yépp sañ ngaa jiital werd bi ngir dabu tuyaa ba ju rëy jooj yi nga xam ne am na ci guddi waaw ndax nee na inna al amala ayan kaana fi l waxti l maskuri ila al fajri bi xamsi miatin kama fi l xadis Seyd Ahmad Tijaan nee na jëf ju mën a doon ci guddi boo ko jëfee la ko dale ci timis ba gee jot yool ba dina dooli ko juróomi téeméeri yoon te noonu it addis ba waxee na ko noonu nee na wa yajuusu taqdimu wirdi lmasaayi bada taqdimi wirdi subi bi sarti l usri al mutawaqi aw zanan wa aw bada salaati witri nee na wa yajuusu dana dagan taqdimu wirdi lmasaayi jiital werdu ngoon bada taqdimi wirdi subi ginnaaw jiital werdu suba bi sarti l usri sartu ngant al mutawaqi guddi bu ñu xaar aw sànn wala muy sànn wa bada salaati witri nee na werdu ngoon dagan nañu jiital ko waaye nag ngantay tax waaye bala nga koo def nag da ngay jiita da ngay je da ngay da ngay da ngay je jiital weddu suba woo suba woo ba noppi soog a indi weddu ngoon wa nee na loolu nag waa tariixa bi ñi ci gën a bari ñëpp ñoom nanguñu ko waaye seexal ajomar moom nangu na ko moo tax ba se ba ko si aj maa waxee ba noppi dafa wax ni laakin xawla sayidi seyxu umar tariixunaa mu'tamadun wa mu'tabar te fi xaasaraayu moom moom nee na moom dagal nañu jiital ko ndax am na jamu taqdim ci julli am na jamu taaxiir am ñe jamu suwar su fekkee da ngay tukki te nga xam ni boo jógee fii fa ngay wàcc jant bi dina so te mënoo wàcc lu dul foofa dagal na nga jiital julli gi bu ma masalan su fekkoon da ngay jël avion wala da ngay dugg ci foo xam ne fii doo fa mën a julli te yaa ngi jóg une heure dégg nga ma wala deux heures te doo fi mën a wàcce dagan na nga julli tisbaar julli tàkkusaan te julli tàkkusaan ci biir waxtoom jotagul loolu moo tax masalay tariixa bi yëpp ñu ngi ko recopier ci masalay sharia bi moo tax Seex al Hajji Umar bi nga xam ne géej la mu ni waxtu weddu ngoon su fekkee ne am nga ngant loo yaakaar ni dina la arrivé sañ nga ko jiital ginnaaw boo jiitalee weddu suba wi moo tax mu ni nag saa xawlu xat waqaa fi rimaa li seexinaa amar si sama laakin xawla sayidi say xomar tarixu naa mu'tamadul wa mu'tabar waaw loolu la Seydi Hadj Malick wax jële ko Seex al Hadj Umar radiyallahu taala anhu mi nga xam ni nee na Seydi Mouhamadou Khalil nee na ko yow doo mu xaddam xalifa nga ci tarixa yi maanaam yow kat doo doo doo simple soldat yow général nga général nag waxam ci quartier lu ñu ko déglu la waaw eh, foofu nag masalan su fekkee ne tey jii da ngaa demoon hôpital ñi programme la ne la yow kat cinq heures lañ lay opéré nga bëgg bañ a werd kon sañ ngaa werd ci boo julee tisbaar ba noppi ndax opération ba ñu lay war a opéré moo tax wala boog nga xalaatoon yow kat toujours waxtu su jotee di nga xën wala sa bopp dina metti wala di nga miir waaw loolu lu la ci daal sañ nga koy wedd avant waxtu woowu loolu mooy fukkeelu masala ba ak juróom-ñaar fukkeelu masala ba ak juróom-ñett nee na boo jullee bi gee ba noppi lu jëkk nga witar safaa witar nga jiital sa werd dagan na waaye li gën a baax nag mooy nga bañ koo def mooy bala nga koo jiital da ngay werd da ngay julli ba noppi ba safaa witar ba noppi soog koo jiital fukkeel ba ak juróom-ñeent nee na wax loo mën a dolli ci werd te tëyuloo ko da ngay def rek astaxfirullah téeméeri yoon nee na soo wàññee ci werd da ngay indi la nga wàññi ba noppi def téeméeri astafurlaa jànge ko ko nee na soo juutalee werd bi te mooy dañu la waxoon ni bokk nañ sant werd bi nag nga def astafurlaa soo ko def laa salaatu ala nabi soo ko def laa ilaha illallah su fekkee da nga koo jaxase wala nga juutal ko nag da ngay dellu ginnaaw ja bañ ko ba toftale ko maanaa su fekkee da ngaa def astafurlaa war a teg salaatu ala nabi nga daal di dem def laa ilaha illallah nga fàttali ko ni kat yow kat la jotagoon a def laa astafurlah nee na da ngay def salaatu ala nabi ba noppi soog a baamuwaat laa ilaha illallah bi su fekkee da ngaa tëb tëb rek jiital laa ilaha illallah nee na ba eggal da ngay dellu ginnaaw def astafurlah def salaatu ala nabi soog a indi nag waat nag laa ilaha illallah soo noppee itam nag nga daal di def astafurlah téeméer maanaa daal soo ko soo ko jaxasee wala nga jot ko loolee da nga koy wàcc commencé waat ko nee na ñaar fukkeelu masala ba ak benn soo wàññee ci werd wi te tey ko aw werd woowee yàqu na kon moom doo di des ko remplacé doo astafurlah da ngay werdaat complètement nee na su fekkee ni as werd wi astafurlah rek la ñu waxoon yow nga ne astaghfirullah asimali si laa ilaha illa wal ayu xayum nga naan nañuy wasifa nga indi ko ci werd nee na su fekkee loolu am na nag su fekkee yaa ko tey sa werd yàqu na soo ko teyul nag na nga dem indi werd astaghfirullah ba képp ba nga xam ne mooy werd wa waaw nee na mooy ñaar fukkeel ba ak ñaar nee na su fekk ñaar fukkeel ba ñett ba su fekkee da nga koo réere wala da ngaa juum wala da nga koo jaxase nee na kon baal nañu la ko waaye na nga indi nag la seex wax te mooy astaxfirullah rek te boo na fi nga def astaxfirullah téeméer nee na su fekkee da ngaa werd ba noppi te fekk sa xel nga ca làmb ja sa xel nga ca football ba sa xel nga ca place ba sa xel nga ca marchandise ba ba weer da ba noppi te dëgg dëgg nag téelu woo ca dara Seydi Ahmad Tijaan ne kon su loolu amee na nga jàng ñetti jawharatul kamaal nee na ba jànge ko ko dina mel ni teelu ko ko te loolu mooy ñaar fukkeel ba ak ñeent Seydi Ahmad Tijaan nee na yàlla te mooy ñaar fukkeel ba ak juróom may nañu ko nga teewlu yéene kenn ba nga ma sóoree ba fii mu nekk mboolem jaamu yàlla yi nga fi jaamu yépp moo xam aj màkka la moo xam julli la moo xam woor la moo xam saraxe la moo xam naafila la moo xam jàng alxuraan la lépp nga boole ko ne yàlla maa ngi koy fas yéene jàngi ñetti jëwharul kamaal boo jàngee ñetti jëwharul kamaal yooyee mboolem loo mus a julli loo mus a woor loo mus a aj loo mus a saraxe loo mus a naafila loo mus a jàng lépp yàlla nattaat na ko ca kàlla ba yëg gën a fees jë- jë- njaamu yàlla yëpp yàlla utal na ko roo ñuy dund te benn yàqoo fi te du ci yàqoo yi dawee loolu mooy ñaar fukkee ba ak juróom kon nag loolu defe naa ne gaa ñi lu mat a teere def la ndax bari na ci ku julli kat te wax dëgg yàlla sa yaa ngay xalaat lu ne loolu nag bokk na ci itam jàng si Ahmad Tijaan ci tarixaam dong la loolu am nee na fa in sakaroo xablal waxti basala nee na ñaar fukki lu masala ba ak juróom ñaar moo di su fekkee ni werd nga lu jëkk waxtu werd sa werd woowee baaxul waaw ni ki nga xam ne boo jullee tisbaar ci waxtu 10 heures sa tisbaar nga baaxul boo wax werde itam werdu werdu tàkkusaan ci waxtu 10 heures sa werd woowee baaxul nee na wa in sakaroo baada xuróoji waxtu li xëy lu usrin itam nee na def nga lu ñàkk nga tegin te wóote ngaa ndigalal suñu amati jaan te bu yàggee mën nañu laa dàq maanaa werd toog ba waxtu werd wi génn nga soog a werd nee na bokk na ci li nga xam ne bàkkaar bu mag la ci tariixa bi te bokk na ci yi génn nit ci tariixa bi ndax Seydi Hajj Maalik dafa waxoon ni ñeenti yëf mooy yi nga xam ne tariixa bi du ko baale boo ko defee rek dàq nañu la siyaaratun wa tarku wal muhaawana wa wa siyaaratun wa tarku wal muhaawana wal jamu jaanibanha mubaayana nee na ñeenti yëf tariixa bi du ko baale siyaar siyaare benn wàll yu bu dund ak bu dee bu dul tijaan boo ko defee amul baale danga ko ci tariixa bi danga koy ñaanaat rek wa tarku soo dajee ubaadu riyaal yi boo dajee يلتفت خلم اخترابا ويحه من يلتفت خلم اخترابا ويحه سيدي حاج مالك نعم، من يلتفت حرم اقترابا ويحه من بحره عذب النمير السلسل من التفت إلى غيره حرم اقتراب من بحره من يلتفت حرم اقتراب فهو يهوى من بحره عظم النبير سلسلي
waaw moo tax mu ni ñeent yooyu tarix bi du ko baale ziyaaratun wa tarku wal muhaawana wal jamoo siyaare benn wàlli yu dul tijaan bu dund ak bu dee bu ko mën a def dong nga ci tarixa bi bul ko tuure si ama tijaan te boo ko ñaanaatul doo dee di mukk te demul sa wara ah nee na wattarku soo dajee ubaadu riyaal yi ñi nga xam ni dinañ jël sax ay kurus yu bari dem ba màkka di ko woon buureen naa ak ñoom ña fa nekkal gaaya naa leen ñii ñëpp génn nañ leen ci tariixa bi ñi jox leen seen xaaj yu bari ñu dikk fii di ko pare pagaane ay jàkkaar yu kenn xamul ak di dogloo nit ci seen kurus ak naa tijaan yi ay yéefar lañu ñooñu nga xam ne ubaadu riyaal dong lañu nag xaaj dong nga leen tax di def loolu ñooñu ma ni ku ci dajeeg nit mu ta théorie la ba nga bàyyi tariixa bi bàyyi ko bàyyi tarkan kulliyat nu itam dong nañu la ci tariixa bi dootoo ci jëriñu boo demee ba nga xam ne yedd nañ la ba nga bëgg ci dellu si da ngay dem ñaanaat ko ñaan bu wér te nit ñooñu it ñu mat a moytu lañu ndax di ñu leen jox xaaj bu bari nga dem ñu dem ci koñ kee dëkk fee kee dëkk fee ñu daal dikk ni dañuy tabax jàkka ji daal di koy tabax tabax bu gaaw daal di ko occupé booy wasifa ñu ne doo fi wasifa da nga nuy tangal da nga nuy seenee parce que ñu itam dañuy def nii dañuy def naa te fekk na bëgg a bëgg a dàq tijaan yi dong moo tax waaye eh, alhamdulilahi rabbil alamina xaalis dong a tax ñu deen ko def waaye kat li ñu nuy tere lépp ñu ngi koy def ca ca ca biir ndax boo jëlee benn fotu sëriñ aj ko ñi ni da ngay bokkaale yàlla boo yoree kurus ñi ni da ngay bokkaale yàlla te ñoom seen buur ya kat ñu ko ajal seeni foto aj ca kaw tubaarkàlla fonk ko lool bés bu ne ñu fomp ko nettoyé ko ba noppi nag yow it nga am koo xam ni kii ku baax ci yàlla la nga aj ko ca kaw di ko fàttalikoo di ko fàttalikoo ngir kóllëre gu dox seen diggante ñi ni la yow da ngay bokkaale yàlla sëñ bi loolu day tooñ gu rëy la eh, نكاي فمنكر على خطر عظيم فمنكر على خطر عظيم ضوء الإنكار أسرار تغام فندعو الله مولى واغلق طريقته فما جو خلفني فمنكره له خطر عظيم ضر إنكاري أشرار تغاب فنلو سلغي نخم كشمس في السماء على الزوال يرى على الذهب ولا غباب مما ترسنج في طريقته خلفني كشمس في سماء على الزوال يرى على الذهب ولا غمام ذخل شمس الأعلة سكور جاكوة بدر الدين وارث من خص بسبع المثاني دون أحداث شمس المعارف بل نجم المفاخر بل بدر الدجى شرف الفيض الفيوضات سكورجنا شمس المعارف تاج العارفين ومن يعرف الفضائل نجل الطياسين والله طريقة في جنت جلال فوق وجنت فنكي فودم فك فناج خلفنا والشمس في كبد السماء ضياؤها يخشى البلاد مشارقا ومغاربا كشمس في السماء على الظلال يرى على الذهب ولا غمام فندعو الله مما دار طريقته وما عجل jërëjëf sëñ Mor yaa ak sëñ Babacar Si nee na nee na kon na ngeen noonu moytu bu baax nit ñooñu leen ñoom dañoo bind ci seen i téere ne képp ku yor kurus rek da ngay bokkaale ak yàlla te boo demee Màkka nag kurus yi fi indi yëpp Màkka la ñu ko jëndee kat waaw te gis naa rek koo xam ne kii dina ñëw sax tey jii ci jotaay bi eh, seen ministre de service affaires étrangères may na ko ñeenti course yoo xam ne benn ba moo ko doon werte moom ministre ba te foofu la dëkk waaw kon nag bi ma demee ak sëñ xale bi ñoom ñi màkka di nga fa gis koo xam ne kii seen sëñ bu mag ba day jox benn naar bu ñàkk teggin te mën a xel nit ñi di puus nit ñi ko këmax ko bëmax rek di leen jox ay ay ay bi ay doll yoo xam ne ay kayit dañ ci bind jëf ci ay ay dugg si yoo salaatu ala nabi nangam nangam lu ne bu ma ne ko lii de lañ ñuy tere waaw sunna si ñuy wax nun dong noo dog sunna waaye ñoom togguñu fenn sunna ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu daa wër kaaba ga moom ñëpp koy bokk amul xeej ji amul seen ñoom nag bu ñu wër kaaba ga dañuy dàq jullit yépp ñu génn ñu gàdde bunt yi ba ñoom bóoree ñu wër kaaba ga ba noppi ak seen i gaay ak seen i gan te seen i gan yooyu am na ci ñoo xam ni sax boo demee jàppuñu bu ñu wëree ba noppi nag ba ñu dem ñu soog waaye jullit yi ñu wër loolu yo loolu mooy sunnaam defe naa loolu du sunna de waaw su ko defee nag këppeel doole rek a fi ne waaye sunna moom nun doomu koy def nee na siyaarul wa tarku wal muhaawana nee na doyadal doyadal werd wi itam bokk na ci yi dong ci tariixa bi nee na doyadal werd nag la ko Seydi Haaji Maalik ta- ta- tekkee mooy fa wa taxiiru bi si wa awraadi an waxtiha bi xayri usrin baadi Seydi Haaji Maalik nee moom na mu tekkee nag moom Seydi Haaji Maalik doyadal werd wi mooy nga toog defoo dara wala ngay fo ba weextu waxtu bi génn nga soog a werd ka wasifa nee na moom loolu la tekkee doyadal werd wi te koy defee dinañ la dàq ci tariixa bi wal jamu ak boole ko beneen werd na budul moom bés boo jëlee tariixa tijaan boole ci beneen werd budul moom soo ko yëgee ak soo ko yëgut yépp fañ la roofoon ca xadara ba roppi nañu la ca sànni nañ ca àll ba dootoo ko jëriñoo te loolee nga doon weri dootoo ko jëriñoo ndax ñooñu nga xam ne dañu naan ah, am na ñoo xam ne am nañu sañ-sañ maye tariixa tijaan ak beneen budul tariixa tijaan yi du dëgg Seydi Ahmed Tijaan musul may kenn tariixa bi nga di ko boole ak beneen tariixa musul am képp koo xam ne kii dangaa ñaan werd ci kenn koo xam ne kii dafa yor beneen tariixa bu mu may yëgal ni amuloo tariixa tijaan te kookee la ko may tegu ko ci digal te moom itam yorul dara te yow mi koy def yoroo dara waaw tarixa bi moom kenn du ko booleeg benn te kenn du ko booleeg benn di ko maye itam yàlla jagleelu ko kenn mayi ko kenn ak ku ko mën a woote it loola moom amul ci tarixa si dafa tijaan sa wóor ga sax bañ na ñu ne laqad harrama al mawla alayka tanaakuhan xalifa ne laqad harrama al mawla alayka tanaakuhan bi an tajmaa al uxtayni fal hukmu shaa'iu خليفة لقد حرم المولى عليك تناكها بأن تجمع الأختين فالحكم شائع فإياك إياك الغرام كفعت بد قد انغرت دعين